non mais mais noo taxawal sa doomu ndey ngi nii Tapha Dabrène Tapha ngi nii l'international ak jabaram maram mais maram da xew nag barki na Mohamed yow da ngaa ñëw ci kër gi indi fi bruit bu rëy kenn attanu la barki Borom Touba lii fii rek laa gis takk jabar tey si suba si mu dem Angleterre fa la defee heure ménage bi non mais Tapha kenn du yow mais daa beneen man dama laa gisagul gisaguma la mais madame il est mignonne barke Seydina Mouhamad ah mais madame il est mignonne mon ami dafa leen madame il est mignonne <laughs> noo <laughs> taxawal sa doomu ndey ngi nii Tafa daa beneen ngi nii l'international ak jabaram madame mais madame da xew nag barki Seydina Mohamed yow da ngaa ñëw ci kër gi indi fi bruit bu rëy kenn attanu la barki Borom Touba lii fii rek laa gis takk jabar tey si suba si mu dem Angleterre fa la defee heure ménage bi <laughs> non mais Tafa kenn du yow mais daa beneen man dama laa gisagul gisaguma la mais manam il est mignonne barki Seydina Mohamed ah mais madame il est moo na mi dafa madame il est